sant ak ngërëm na leen ñu ngi leen di jaajëfal ci seen teewlu ak àndu bi ngeen ànd ak la chaîne leader ñu ciy kontaan lool saa su nekk di ci bëgg waxtu wi jot na ñuy jéggalu sax ci quelques minutes de retard yi nga xam ne jéeg ak këram am na ko waaye nag c'est parti ñu dooraat beneen numéro wu jéeg ak këram waxtaanee ko dafay doon lu am solo ndax saa su nekk nee naa leen suñu téléspectateurs ñooy suñu raison d'être loolu moom moo tax euh, saa yu actualité amee rek dañu leen ci gunge bu baax a baax waaye di leen gunge aussi tous les jours ci lépp loo xamante ne soxal na seen nekkin rek ngir mujj gën a ñoŋ yooyu yëpp dañu ci ànd ak ñoom bu baax a baax tey nag nekk 5 euh, avril 2024 dañuy dalal suñu invité de marque xam ngeen ne waa ANACIM mën nañu wax sax ni suñu ay partenaire ci la ñu bokk ndax dañ leen di gis di leen dalal ci plateau bi di waxtaanee climat bi ndax dafay doon lu am solo ndax yenn saa yi aussi mu am ay perturbation yoo xamante ni leen nii ñoom dinañu tax ñu gën a fagu gën a xam naka la ñuy doxalee tay nak ki ñuy dalal ci invitation bi mo nek monsieur Ndiaye euh, directeur de l'exploitation de la météo à l'ANACIM tay mom moy tew ci plateau bi waxtane nak ndax dañu leen primé euh, prime boobu ñu leen jagleel ndax performance yu am solo yi ñuy def ci walu météo dina ci dik ak ñun indi ci ay leeral yu ama am solo inshallah tout à l'heure lay dal di doon waye ci bir lolu aussi Fatima xam ngeen né euh, tous les lundis da fay ñew waxtane entrepreneuriat ndax waxtane ëllëgu ndaw ñi fay doon lu am solo te yitte la aussi ci ñun loolu moo tax saa su nekk dañuy dalal les jeunes entrepreneurs ñu waxtaanee seen vécu seen expérience partagé ko ak yow mi tok bëgg entreprendre ben mbir te xamoo fooy jaar su ko defee bu ñu ko waxtaanee dinañ la may bunt boo xam ne boo ci jaaree rek di nga réussir la ngay entreprendre euh, tey nag ki ñu dalal mu nekk ndey Yacine Linguère Ndour moom nag formatrice la euh, de Kër Linguère euh, épice suñu moomeel ndax dafay baax ñu waxtaanee suñu ay produits locaux loolu moom mooy jën jëmmal suñu koom-koom mooy tax aussi ñu consommer local te dafay doon lu am solo honor aux dames laa bëggoon wax waaye comme suñu kilifa dafay teew nekk

macha allah c'est partagé noonu rek la ñuy wéyalee waxtaan bi euh, dem si suñu beneen invité Fatima lay mujjeel comme ñooy borom kër gi nañu dalal invité yi ba pare euh, su ko defee euh, Yacine Linguère ma am mbégte recevoir la ci plateau wu Jéeg Këram. maman maa ngi lay nuyu. Mhm. ah di nuyu waa plateau bi di nuyu waa Sénégal yëpp. Mhm. di leen wax de man je m'appelle Ndeye Yacine mhm. ah je suis entrepreneur. waaw tey ñu toogal fii sama mbokku jigéen ñi ak jeunes yi pour ñu commencé consommer local n'ak? jot n'ak. nag jot na. ah ña nga ca sax nag <laughs> dañuy daal di wéyal rek ndax boobu ba tey dafa mel ne nit ñi sax dañaa conscient que ne ah wax dëgg suñu produits locaux yi amuñu lu ko gën ndax lépp lu ñu euh, consommer euh, xamuñu euh, conservation ba na muy demee xamuñu aussi naka la def ba réaliser ko donc dafay gën ñu daal di jëmmal suñu femme transformatrice yi seen liggéey bu am solo bi def te day tax ñu am ab xëy am wéccat bu ñu yóbbu ci kër ga jàppale borom kër yi mi ngi nonu Fatima nuyu na la xanaa di nuyu ñu ñuy seetaan <laughs> mhm. di nuyu ñu bokkal plateau bi monsieur Ndiaye ak yassine mi qui nous a fait l'honneur d'être là parmi parmi nous mhm. du nuyu ñëpp rek comme les lundi on revient comme ni ma koy waxee ci entrepreneuriat té nak yassine mo fi teew wallaay ndeysaan actualité oblige comme ci koor gi euh, korité la ñu jëm mhm. limu mu indi moom day mengok ci fu ñu jëm wallaay da fay mengok fi ñu jëm parce que ku wax korité aussi wax xéewal ya ñi xéewloo te xéewal yoy aussi da fay bax ñu def ci ay mbir yo xamné duñu defal ben intoxication mais aussi tamit suñu ko mëne lek mu res lolu aussi da fay doon lo xamanteni lu am am solo la waaye nag Fatima tey balaa ñuy wéyal waxtaan bi eh, di dugg ci suñu ay invité wax li leen fi tax eh, dañuy jaale Sénégalais yi d'abord dañ leen di massawu mm-hmm. eh, jaale leen bu baax a baax a baax ndax xam ngeen ne suñu premier ministre bun Abdel ancien premier ministre bi mm-hmm. nga xamante ne leen de 2014 à 2019 nekkoon na fi premier ministre du Sénégal nekkoon bun Abdoulaye Dionne moom xam nga dafa génn àddina mm-hmm. le 5 avril bii nii donc ci biir loolu aussi dañuy daal di kay jaale jaale euh, suñuy téléspectateur jaarle ko sénégalais yi mm-hmm. euh, dencagun ko naam waaye ba tey dañuy wéy di wu famille bi ndax xam nga Sénégal moom bu fi kenn wàññeekoo rek population bi yëpp ñoo koy yëg mhm. rawatina koo xam ne amoon na taxawaay boo xam ne ñi mi ngi doon servir nation bi mhm. donc tey ci euh, à travers ma voix la chaîne leader da koy jaalewaat askan bi mais aussi tamit di massawuwaat famille am euh, di leen wax rek euh, yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko aljana yi fiir daw su su ko defee nag suuf daal di woyof ci kawam bu baax a baax a baax loolu la ñu koy ñaanal mhm. waaye tamit di jaalewaat keneen mu nekk Maguette Thiam nekk secrétaire général PIT euh, moom itam dañu koy waat sénégala yi ndax addina euh, moom noonu rek la demal maa ngi ñëw la ñi fi des nag euh, seen yitte rek mooy ñaanal ñi fi jógee su ko defee suuf woyof ci seen kaw mhm. yàlla atte leen ci yërmandeem daal di leen di jéggal nag seeni ay juumte ndegam juumteek dund bi ñoo ànd yàlla na yàlla jéggal ñëpp ñu ñu jiitu te xare leen aljana ci kàttanu yàlla ak baaxam mhm. noonu rek nag la ñuy daal di wéyalee ginnaaw ñaan yu am solo yooyu nga xam ne jagleel nañu ko suñu doomu réew yooyu nga xam ne génn nañu àddina dañuy wéy nag daal di dem ci programme mu tey bi waxtaanee ko dina doon lu am solo mooy julli gi ñu dëgmal waxtaanee épice ya nga xam ne war nañ ko utiliser ca lekk ya nga xam ne moom la ñuy amal dañuy dem ci benn élément xool ko ba pare dellu si waat ci plateau bi soog a mën a gën a dalal Linguère waxtaanee ko. marché d'intérêt national nekk fii ci Diamniadio jaaykat yi tàmmali nañu di pareel fetu korité bi ci biir magasin yu mag yi

franchement client yaa ngi ñëw te ñu ngi partagé aussi ak suñu yeneen moroomu jaaykat yi produit du manqué parce que fii dañoo am euh, am nañ stock bu bëri teg ko fi mën nga ko bàyyi ci ci biir magasin bi parce que fii dafa aéré du def dara soit nga bàyyi ko ci biir wala nga yóbbu ko chambre froide bu la ci gënal rek waaw ñaari possibilité yooyu am na bu la ci gënal rek nga def ko lu waaye bëgg daal boo ñëwee di nga ko fi am incha allah. taaruwaay produit yi ak njëg yu baax yi. tax ba client yu bëri ñëw di jënd. gis nañ ni que produit yi ay produits frais la euh yu bax la té aussi euh de bonne qualité la lool moo tax ñu né nañu ñëw fi wa wa njëg bi mom vraiment c'est wañé ko na trop par rapport ak yi ñuy gis yi ñuy faral di gis ci marché bi mën naa ni baax na pour dugg si pour Korité bi ak pour aussi. Euh, soy ndugu tous les jours li ngay soxla prix tamit yomb par rapport ak marché parce que bon ci banlieue bi souvent da ngay euh, kilo par exemple bu carottes, wala kilo bu euh, voilà des légumes Il daf lay 600 ou 650 ça dépend ou 700 même mais bu ma ñëwee fii da ngay c'est juste 500 wala 500 ou 300 ouais C'est lu baax la su chaque mois dina baax trop ay fan bala korite bi jaaykat yi tàmbali nañu di kontaan ndax njaay mu dox. yaakaar nañ ni dinamana ni que dina mën a doy pour euh, clientèle bi nga xamante ni moom la ñuy xaar bi ñu ubbee marché bi ba léegi euh, ça n'arrête pas ñu ngi jaabante di dew di ñëw. client yi ñu macha allah ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw moom ñu ngi ñëw moom ni ñëw moom te yaakaar naa sama xalaat bu gàtt tey ak suba incha allah client yi dañuy yokku ñoo ngi sa ñoo ngi ci gis suñu bopp daal. soble pomme de terre di lu ñu sopp lool ci fetu yi. fii ci marché Diamniadio jaaykat yi am nañu stock bu bari ngir mën a bëggal client yépp mi ngi noonu élément bu am solo boobu nga xamante ni dañu àndoon nañu ko ak marché yi nga xam ne créé nañu ko ngir gën a mën a faciliter nit yi euh, seen ay ndugg waaye aussi tamit ngir nit ñi bu ñuy dem di nekk di ndugg ji Fatima ndax tey boo gisee marché yi mhm. nga xam ne da à l'aise ci nekk ci biir marché bi euh, ndax euh, hygiène ba nga xam ne am na fa mhm. mais entretien bu am solo bi nga xam ne ñi ngi koy amal ci marché yu ñu créé mhm. ba nga xam ne nit ki mën na ànd ak famille yëpp dem dugg loo xam ne daaw ko doon gis autant waaye aussi tamit gis ne que ne dañuy am ci biir marché bi sables bu frais mhm. am euh, de terre bu frais am ay frais xamanteni dañ ni dina tax nit yi euh, parce que ce non dafa beaucoup ci alimentation bi parce que dañuy wax ne que ne la santé se trouve dans l' assiette mm-hmm. mooy que ne ci kaw bu ñu xamee santé boobu noonu assiette boobu naka la koy euh, euh, defee ba nga xamante ne ni la ca wax euh, ci ay protéines la ca wax ci ay vitamines mm-hmm. ñun aussi dinañ ko mën a recevoir ci suñu yaram mm-hmm. mooy xam temps de cuisson bi comme ni ko ñoom ngeex di defee nii ci seen ay épices mais aussi tamit ngir am ay légumes frais yoo xam ne jëm nañu ci julli bi te dafay am solo ñu daal di koy teg wax leen ne marché bi bu ngeen fa demee di ngeen mën a dugg seen dugg ci yi ngeen ko bëggee yóbbu ko seen kër njaboot njaboot lekk ko te jàmm rek lay doon dëgg la tout à fait man damay rebondir si mhm. ci li nga njëkk wax ci mooy ci propriété bi mhm. balaa ñuy ñëw ci marché bi mhm. xam nga marché loo xam ne fa la ñuy li ñuy lekk li ñuy def ci suñu biir ñi fa nekk di fa di fa di fa di fa jaay ñoom ñoo war a góorgóorlu ba marché bi set gaa euh, mairie yeeg yooyu ñoo ngi fii pour nettoyer ak yooyu noonu mhm. mais ñoom en commençant par ñoom ku nekk fi nga nekk ci fi nga toll fi nga toog nga def sa benn pot boo xam ne wala benn siwo boo xam ne mhm. lépp luy salte dañ ko dajale bu ko defee waa mairie bi da leen di yombalal seen liggéey te dañ ciy sawar loolu mooy waral mhm. pour fraîcheur bi ngay wax ak vitamine yeeg yooyu tey ku jëndee euh, ay légumes fi nga dalul sa xel boo ñëwee temps de cuisson bi nga warona may doo may di nga may plus da nga naan ndax microbe yi ndax ñu ray leen am am déet bu ñu ñëwaatee ci marché international bi daw mhm. ci heure bi dañu invité won sen directeur bi wala mhm. wala quelqu'un de ñoo xam ci bureau bi lañ bokk parce que mhm. dafa am solo fi mu toll imaginel tu n'as plus besoin d'aller par gauche et à droite le fait de ñuy dajalee euh, les producteurs mais une place pour nous euh, livrer, pour nous cette marchandise en direct ce mhm. nous bu rafet C'est un marché international ku fa dem frais insister frais bi <laughs> parce que mettre dans des conditions des chambres froides des conserver ces légumes

yeneen day day day yu bëri da ciy mm-hmm. yàqu mm-hmm. nañ ci lu ñu bàyyi ci xel ba yóbbu ko waa Ziguinchor surtout macha allah <laughs> bi moom ma nga euh, fële euh, ca jam ñaajo mm-hmm. dafay doon lu am solo ba pare li ci am solo monsieur Ndiaye mooy que ne tey jii yéen euh, góor ñi mën naa ne lay amatul parce que avant da ngeen doon wax ne xëy na peut-être yéen marché bi xam nga kiiwul ci yéen et tout mais tey bu ngeen gisee marché bu jam ñaajo bi da ngay xam ne yow mën nga dem duggal sa soxna ba mu baax def sa oto ñëw parce que boo demee nombre yëpp nga fay daal di fekk mais aussi dalay lay faciliter parce que euh, avant xëy na jaaykat yi dañ daan jël prix yi daal di koy euh, tripler mais fii euh, prix yëpp a normal donc amul waxaale bu metti amul uh-huh. dara boo ñëwee prix bu gën a yomb nga fay fekk ndugal sa soxna mm. yóbbul ko wàcceel ko benn charge baa yaa ngi ciy xalaat <laughs> maa ngi xalaat am solo la di kontaan lool ci initiative yu mel nii mhm. parce que wax nga dëgg yenn saa yi fu ñu jàppale soxna yi tamit ci ndugg yi di dem marché mais yenn saa yi mhm. xam nga boo nekkee góor fa mhm. nga xal fa lay parqué xalaat dafa xat xam nga yu mel noonu te soxna yi yenn saa ñun on n'est pas trop patient xam nga ñu jaar fii wut fi wut fii amul fii donc ni ñu ko organiser nii dañuy sawaral mbir yi ñu dem ci mën ngeen ci jàppale bu baax a baax danañ ko gisee nii vraiment lu a la ndax boo gisee sax eh, li nga wane mhm. mooy gis nga ni góor gaa ngi jigéen bi jàppale ko ay bagage dem te loolu day day faciliter mbir lool te loolu nag mooy la jigéen ñi bëgg en général ndax léegi ni ñuy mhm. def mooy dugg loo xam ne semaine ngay def mhm. wala dugg loo xam ne mois mën koo bàyyi ci kër gi di ko

parce que produit ya ñuy jaay ca marché ba euh, tay mom ngeen di jël ngeen transformer ko def ko ay épices ndax avant dañu daan utiliser ay cube yo xamanteni ken xamul nan lañ koy defaree mhm. ken xamul aussi tamit naka la mëna def ci suñu wérgu yaram mais tay ngeen consciente ci lolu ñu former leen euh, ci structure yi nga xamante ni leen nii teg nañu ko ngir ñu jappalé leen ngeen mëna démal demal seen bopp mais aussi ngir ngeen mëna sam sàmm wérgu yaramu nit ñi ci li ngeen di def donc link bi mi am ak yeen euh, tay gis lëjum bu frais

parce que li ñuy lekk tey ñun xale yi mooy mooy feeñ si sunu magu ëllëg mm-hmm. suñu wér-gu-yaram ak suñu wér-gu-yaramu njaboot mm-hmm. moo tax loolu noonu c'est une ten initiative mm-hmm. ñu ngi koy rafetlu ba pare li ma si gën a neex mooy espace bi ba pare soo fa demee produit locaux rek nga fay fekk te lépp lu ñuy bayee si Sénégal moom nga fay fekk kon ñëpp moom lañu foofu la ñu war a dem di jënd ji produit locaux yi di ko yóbbu seen kër yi légume bu frais lu tax nit ñi bëgg ko mhm. goût bi mhm. parce que soo gisee légume bu frais mhm. ak légume bu frais wul di nga xam ba pare soo ko toggee aussi di nga si gis benn différence bi dinga xam ne légume bu frais bi ferñeent yi mu mën a def si sa yaram légume bu frais bi mënu ko def ba pare ñun ñoom suñu paree bu ñu jaayee ba ngoon bu ñu wàccee li ñu desal ñun moom lañ ñuy jël d'accord jëlaat ko transformé waat ko mu delluwaat si ñun parce que tamit il faut que ñu topp chaîne de valeur bi mais itam environnement bi social solidaire bi fokk ñu ñu bàyyi si xel si environnement bi lu koy polluer déchets yooyu si la bokk te déchets yooyu noonu si bu bu bu développé daf ñuy defaraat ay jàngoro te jàngoro yooyu noonu soo ko amee doo wér mhm. sa njaboot du ñu wér mhm. doo mën a liggéey doo am xaalis te comme que ñu dañoo bëgg xaalis <laughs> foog ñu xool lan la ñuy lekk xool li suñu njaboot di lekk mhm. pour que ñun ñëpp am bon santé mën a liggéey bu baax ndaxte réew mi ah, war nañ koo liggéey de incha allah ci loolu la ñuy daal di wéyalee sax Fatima mhm. euh, dugg sa invité nag waxtaanee tey li nga xamante ni la nii mooy euh, seen euh, wax naa ne projet la rek parce mhm. que tey jii bu ñu demee ba xalaat ne lépp lu ñuy consommer mën na nekk suñu ay produits locaux loolu moom ñaari mbir lay indi mooy suñu wérgu yaram mhm. ba pare du fël suñuy poche te loolu dafay nekk lu ama am solo tey mu wax ko recyclage bi nekkatul léegi rek ci objet yi nga daan gis mais dañuy recycler sax ci alimentation bi maanaam yi nga xamante ne wax na ko demee ba ngoon si mu war a des ci seen loxo te loolu bokkoon na ci liy participer euh, ci marché yi du am hygiène ba ca war ndax su yooyu nëbee mu indi tilim mi ngi mhm. noonu indi yeneen ak yeneen yoo xam ne bu jaxasoog yi baax yi mhm. après dafay jur ay jafe-jafe mhm. donc ma bàyyi laak euh, li mu li mu indi moo am solo parce que am na benn kenn kuñ fi invité woon j'ai oublié fàtte naa bi moom da doon wax naan lu ñu yu ñu togg ba pare xam nga parfois sama genre gi ngay taamu li ngay lekk ci ay légumes moom da ko defaat ko benn compote de sorte que après nañ ko mën a utiliser waat. Mhm. tey moom li mu ne dafa am solo nit ñi buñ jaayee ba pare li des. parfois pour ne ñu sànni ko mën nañ koo jaayaat moom mën na ko jëndaat ci ñoom mhm. transformer ko indi ba mu am épices yi si am nii tey mhm. léegi man sama question ba may lay njëkk posé mooy Linguère lan moo la dugal qu'est-ce qui t'a donné l'idée ba nga dugg ci ay transformation épices yooyu noonu épices yi par hasard la ñëwee si man parce que man euh, couture laa doon njëkk a def. d'accord après sama ay voyage yu ma doon def Maroc. Mhm. moo ma gën a dugal si épices parce que su doon ñëw Sénégal dama doon indaale épices di koy mhm. jaay. Mhm. mais après ma pourquoi pas. defaral ko sama bopp ñoom ay herbes rek la ñuy utiliser. ak lijum. di ko jox seen waa dëkk. ñun lan moo tax ñun ñuy war a importer épices fépp foo xam ne si si si bi. foo dem si àdduna bi sénégalais yi ñu nga fay dem di wuti ji épice te ñun am nañ matière première boo xam ne ça reste juste de le travailler mhm. loolu moo tax nag ñun ñu jog bëgg Sénégal yëpp jàpp ci mhm. xam ne lii politique bu bu noble la mhm. parce que importer euh, épice wala importer leneen loo xam ne sa waa dëkk dañ koy lekk koñ ngeen di développer si si réew jàmbur yi ngeen bëgg a développer seen réew. Mhm. c'est pas possible. c'est pas possible. il faut que ñu consciente mhm. si ñun ku nekk la ngay lekk si sa réew moo lay def sa wérgu yaram. Mhm. ñu xam ko. ba pare ñu xam ne li ñuy lekk ñun di ko defar ñun sunu sunu réew. di ko lekk mooy tax ñu am xaalis. parce que su ma ko jaayee Fatima. mu yóbbu ko këram mu neex mu lekk ko. mu am wérgu yaram. bu subaa day ñëwaat ci man. dëgg la te recommandé ko maman aussi. recommandé ko maman. Mhm. en plus xaalis boobu noonu. si réew mi rek lay delluwaat. kon indiwul développement. moo mhm. tax ñu siy woo jigéen ñëpp. ñëpp mhm. nañu takk ba dëgër. ku nekk loo mën def def ko parce que liggéey amna na fi de. même xale yi nga xam ne ñu ngi nekk di génn. jaratul ñuy génn fa ñu jëm. amatul dara ñoom liggéey nañ seen ay réew ba tabax ko ba pare. ñun ñoo war tabax sunu réew. Nous ñun dañuy continuer importer épices d'importer les di importer dans 30 ans dans 40 ans dañuy continuer ñaata millions de sénégalais lañuy nekk mm continuer importer maintenant kon nag léegi la takk ko ba dëgër. Mhm. Mhm. góor ñi yéen boo leen jigéen chaîne de valeur bi. maanaam bi. ak ki koy euh, produire. Mhm. ak ki nga xamante ni la nii moo koy jënd loolu noonu yëpp benn seen la. boo ko ne ku nekk da ciy gis boppam ndax producteurs yi suñu produire. ñun ñu jël transformé. yéen ngeen jënd ko. delloo delloowaat ko seen njaboot. lépp si réew mi lay nekk. lépp si réew mi lay yem. kon donc foog ñu conscientiser ñëpp. dèjà présent góor ñi sànq ma dagg la loo bëggoon wax eggali <laughs> eggali waxal ak ñoom góor ñi suñ ñu bàyyee ñun jigéen ñi ñu tabax réew mi dégg nga lii waaw man maa wax loolu. dëgg la wax noonu dëgg la. nañ ñu ko bàyyee xool. dëgg la. monsieur Ndiaye. maa ngi lay interpellé. waaw <laughs> ah, nañu jàppale am dafa am solo. suñ ko bàyyee rek. Ah? ah ñu tabax ko. waaye ñu jàppale leen waaye monsieur Ndiaye wax am na solo. Uh-huh. faaw ñoom ñu nekk suñu wet jàppale ñu. loolu dëgg la ndax xam nga jigéen force am bëriwul dafa gaaw a épuisé ay force am. donc uh-huh. su boobaa ñun ñoo ñuy épaulé. Uh-huh. Euh, di ñuy renforcer. ba li ñu bëgg a def ñu def ko. kon d'accord monsieur Ndiaye kon d'accord kon d'accord daal. réew la jëm bu fi kenn defati indi ay xam normal la xam nga tamit dañuy sawar wax nga mooy chaîne de valeur mhm. transformation lu am solo te loolu ñu manqué mhm. am nañ produit macha allah matière première malheureusement duñu transformé mhm. donc bu gisee entreprise yu mel te li ma neex mooy day transformer li li des cest ki jaay ba pare bu jaay ba pare problème am mooy li des na laa koy conserver am na produit yoo xam dañuy gaaw a périssable comme ni ñu koy mhm. waxee mhm. te amuñu énergie bu doy pour mën ko euh, réfrigérer donc bu ñu gisee kenn koo xam da koy jël di ko transformer am solo la mhm. te lii nag moom mooy appelé mooy tax chaîne développé bi am solo ndax gis nañ fi at yi passé alhamdulilah gars yi bay pombateer bay leneen yu bëree bëri mu antu lool mu kenn jënd ko <laughs> ñu obligé sax di ko sànni wala di ko bazarder mhm. léegi transformation bu amee day régler problème yu bëri donc a encouragé la te lii mooy développement dëgg-dëgg mais bàyyi leen ñu jàppaleen <laughs> jàpp si sax parce que ñun mënuñoo dem sans yéen fu ñu nekk yéenay nekk suñu wet di ñu gunge mhm. di ñu xelal mhm. di ñu toppatoo kon donc ñun lu ñu liggéey rek si yéen lay dellu xam nga jigéen dafa muus lu mu kii rek da koy defaraat na ko

xamante ne nii tey euh, gunge nañu ay jigéen ñu bëri ba ñu am formation ba ñoom itam bu ñu demee seeni ay koñ sax dañuy mën a former nit yi parce que nee naa jigéen ñi même bu ñu deful ay réalisation ngir mën ci am koom-koom mais le fait que ñukoy def seen biir kër di seen njaboot di mm. koy dundé rek lolu rek aussi tamit benn mbir bu ama am solo la mm-hmm. donc ñu ci saluer bu baax seen courage bi ngeen am parce que jigéen ñi aussi dañu am détermination bu am solo mm-hmm. euh, gëm ne que ni mën participer ci développement dëkk bi mm-hmm. euh, di ci def liggéey bo xamanteni ni la ni dañ ci béeg dañu ci kontaan saa su nekk euh, ba paré ñu reveniraat tamit ci nombre yeeg hygiène bi parce que lolu tam moy tax mu jéggi frontière yi dem bitim réew comme dañu daan jéggaani ñun aussi ñuy yobbu lolu la parce que pour importer mhm. pour exporter plutôt il faut que mhm. les conditions soient respectées. respecter films Mm-hmm. comme waa 3FPT ak ADPME pour ne pas faire de pub suñu partenaire lañ la mënta ñak faaw ñu tudd leen mm-hmm. ñom ñi ngi ñu ngi leen da ko tek pour euh, askan bi donc voilà à tout à fait mm-hmm. ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi góorgóorlu ci ñom ba packaging yeeg yoyu parce que lepp day compter ñoom bo xolé seen produit yi ñuy importer yi ñuy utiliser yi ñuy jaay ci grande surface yi bo ci xolé ñoo ngi koy def ci ay boîte ak yoon non yëpp parce que c'est important da fay am ay conditions yu leer yu tax nga mën exporter ñi nekk fi di transformer aussi nañ ci góorgóorlu nañ ci farlu ñi ci def nak parce que bo xolé packaging yi ki andi mhm. avant da ngay ñëw ñu défal ci mbuus nga tak yóbbu mhm. légui ñoo ngi góorgóorlu moderniser ko respecter les normes bañ ko mëna a euh, exporter mhm. ñi ñuy seetaan képp ku ci mëna japp mëna jappalé euh, jigéen yi nga xam ne ñoo ngi yëngu képp ku leen mën a renforcer ci formation yi mën ngeen a ñëw ba ñu mën a exporter parce que instant et parfois loolu mooy seen problème mm-hmm. dañuy yor seen produit mais problème bi mooy écoulement nan la ñuy mm-hmm. def ba écouler seen i produits mm-hmm. gaa ñi ngi góorgóorlu ci réseau yi di waxtaan di passante ci foire yi bu bu bu jotee ñu dem ci foire yi exposer seen i produits mais buñ ko mënee exporter comme ñun comme comme ñiy importer ñëwaat euh, bitim réew nu ñuy amee seen i produits ci grande surface yi ñom ñu def pareil ça serait bien. Mhm. Mhm. Euh, li ma bëggone la té moy par rapport ak formation bi nan nga def ba am accès ci formation bi mo mëna a réaliser li nga réaliser tay comment ça s'est passé. Mhm. Mm, formation yi entrepreneuriat dafa nek lo xamné il faut que nga am passion bi déjà. parce que li ngay bëgg def. boo si boko bëggul. dara du la fa fekk. il faut que nga bëgg ko ba paré nek ci. ki la si jàppale ñëw fekk la si. tout à fait toog sa kër. te croiser les bras. bëgg nit ñi ñëw fekk si la ne la kaay def dara. dëgg la da nga ciy ne ba pare. nit ñi jàppale la. Mhm. man bi ma doon indi épices yi di koy jaay fii Sénégal. Mhm. après dama ko bàyyi. Mhm. ma commencé. kon avant danga doon importé. waaye dama doon importé. ay teen yooyu noonu rek yi ñuy jënd tout temps. léegi nag ñom lay xex mhm. dëgg am nga ci droit. <laughs> néna len nañu bayyi importé. Mhm. parce que des épices qui ne voyagent pas ça existe. Mhm. chez Linguère épices. <laughs> même saveur même goût. même saveur même goût. sans conservateur ba pare sans conservateur. sans produit chimique. c'est important ba pare li ñuy bayé ci réew mi moom lañ ko defaree. kon xam nga loolu c'est une très bonne politique. dëgg la te ñëpp ko war a soutenir. dëgg la léegi ñu ñëwaat si formation bi. boo ñu la si fekkee ngay def dara mhm. plateforme yi ñu ngi fi comme ADPMA mhm. comme 3FPT comme DER mhm. même waa ITA hygiène ak qualité boobu ngay wax ñun foofu lañ ko jàngee dëgg la produire doo gis sax ñu laal suñu téléphone du ñu laal suñu téléphone te soo ñëwee di nga xam ne ñii si production la ñu nekk kon hygiène ak qualité mhm. ITA moo ñu koy jàngal mhm. formulation yi ITA moo koy jàngale mhm. parce que mooy institut de de l'alimentaire euh, technologie donc ñoom ñoo fi nekkal ñi nga xam ne ñooy def produit euh, alimentaire ñu tege si norme yi tege si yi ba nga xam ne lépp li nga xam ne dañ koy jox askan wi seen bopp lañ koy jox de man boo ñëwee sama kër moom laay toggee te su ma toggee ñëpp a yàkkamti ma yàkk <laughs> ndax xet ga muy dégagé ndax xet ga muy dégagé parce que dañoo wax ne que ne avant maam yi bu ñu daan togg mm-hmm. soo tëllee ci kër gi rek xet bi moo lay gën a jox envie nga lekk lu ñuy togg léegi dañoo demoon nag ba loolu commencé woon raaf mm-hmm. toggin bi nag moom moo ko waral mm-hmm. mais tey jii ak épices yi nga xam ne yéen a ngi koy réaliser nga xam ne c'est au choix boo dee togg ginaar wala ndawal wala jën bu ci nekk am na épice am euh, crevette ak lu ci nekk rek am na épice am man ngeen gis naa sax ba gis fi les sept merveilles xaw ma nag lu muy signifié

mooy ngun-ngun ñëpp mm-hmm. xam nañ ko dañ mm-hmm. koy bay mm-hmm. microjardinage yi boo demee ñëwee mariste man fa ma dëkk lépp la ñuy bay léegi tin bi ñu nga koy fay bay li fa bay mélis am euh, sare mooy herbe yooyu nga xam ne boo demee Maroc si seen Euh, marché yi mhm. moom ngay gis mu lay xeeñ noonu mhm. Mhm. nga am amoo envie lu dul jël leen yóbbu sa moo tax seen tagine yi dafay am odeur bu muy dégager bu neex voilà tout à fait épices moom moo ko waral mu ngi épices yi moo ko waral am ay ferñeent yu épices yi am ah, bien sûr ba pare day faj sax dëgg la mooy ferñeent yi muy def mooy ferñeent yi parce que euh, épices yi si médecine traditionnelle même chose ñoom moom la ñuy utiliser waat comme xoolal gingembre citron clou de girofle bi ay bienfaits am kenn waxatu ko tout à fait bien yëpp xam nañ ne lii moom ah li muy def si yaram di ko def si boo lekkee ba suur nag moo ci gaaw gaaw ci digérer digérer <laughs> <laughs> loolu daal nekk na lu am solo monsieur Ndiaye te xam naa ne te bu mag la jur aussi euh, mhm. ci téléspectateurs yi ñuy seetaan gis na que ne euh, non seulement suñu femmes yi dañoo brave mais aussi intelligence mooy def yenn mbir mhm. mooy tax nga mën a créer tax aussi la nga créer ngay xool à chaque fois nan ngay def ba gën koo mën améliorer ba ñëpp aussi mën ci jot euh, ñuy wax aussi itam c'est accessible à tout le monde mmh. parce que tey ñu bëri dañuy foog ne peut-être yenn épices yi dafay cher mmh. wala mbir mi day toll foo xam mmh. la nga daan jëndee cube bi nga indi ay mbir yu néfaste ci sa gu yaram sachant que lay rek lay jar doguma la sax voilà parce que euh, épices ngay gis ne soo ko commencé di togg dépendance lay doon yow ko parce que goût bi nga soxla mhm. si yeneen yi nga doon utiliser moom nga ciy am moom nga fay fekk mu gën a sell mhm. ba pare mhm. authenticité bi mu am ba pare goût boo xam ne bien de chez nous nag mhm. macha allah loolu am solo <laughs> uh, mi ngi noonu donc yéen ñi nga xam ne yéen a ngi waajal julli gi ginnaaw suba muy feet bu am solo mhm. uh, boo xamante ni leen yi macha allah ku ci nekk si ñun aussi dafay bëgg bégal njabootam uh, def ca la mu mën pour que rek xale yi kontaan mais aussi waa kër gi kontaan bàyyi leen xel ci épices yi nga xam ne moo leen war a gunge ci seen ay waañ mooy tax bu ngeen paree togg bi mu des ngeen mën koo conserver te du yàqu mhm. parce que conservation bi li tax lu ci ëpp mu daan am ay mbir mooy que ne ya def ca togg ba moo bari ba nga xam ne bu ñu ko dencee aussi dafay jur ay mbir yu doy waat te yàq tamit dafa xeewi bu desee faaw ñu denc ko ngir mën koo xewloo waat mhm. donc lañu ñu def nañu ko xam ba nga xam ne bu desee buñ ko dencee du am benn gàllankoor ci suñu euh, wérgu yaram dañuy wéy nag daal di dem ba tey waxtaanee météo ndax ku waxtaanee tamit alimentation mhm. euh, climat ba nga koy defee tamit war nga caa mën a xool te ñi ñi ciy gunge mooy waa ANACIM ndax ñoom itam tax nañu ba ñun dara réeratuñu bu ñu waree dem ci géej gi sax dañuy jël suñuy précaution mhm. ndax taxawaay bu am solo bi ñu am ci wàllu woowu ñu dem euh, jëli élément ba pare dellu si waat gën a dalal monsieur Ndiaye dem ak moom ci waxtaan bi. fii si diwaanu maatam tàngoor bu metti lañu ñu nemmeeku température bi ci diwaan bi day faral di ëpp 45 degré muy li nga xamante ne dina indi ay gàllankoor si wérgu yaram askan wi bu ñu sukkandikoo ñi nga xamante ne seen xel màcc na ci wàllum wérgu yaram ñu ne jamono bi feebar yu ñu gën a ràññeeku mooy lu ñu hypertension artérielle ak yeneen feebar yu japp dënn bi. jamono bi feebar bu gëna bëri surtout ici en cardiologie c'est l'hypertension euh, l'hypertension artérielle c'est-à-dire tension bu yéeg pour tension bi d'abord euh, tàngoor bi mun na ko mun ko expliquer parce que ni mu tàng tàngo tangor bi bu ëppee ni duñu du nelaw bu ñu nelaw lé sen euh, sen sommeil day perturbé dinañu stressé wu stressé wu tension dina tension bu nit bi tension voilà tension dina nit bi nit ki euh, dafa tension am problème cardiaque bu tangor bi nelaw bu baax muy stressé wu bu mu problème xol bi dina dina dina dina complication. tax nañu ñaax askan wi ngir rawatina motuka yu ñu xaarandi si ñoom. léegi askan bi nu ñu def si période tàngoor bi moy, nañu protéger wu c'est-à-dire bu tàngee tàngee trop nañu tok seen si kër yi wala si kër yi wala si kër gi wala si nga xam ne am ne am nañu moyen ñu ñu si milieu bi nga xam ne dañu am climatiseur wala ay ventilo fu sedd daal te ñi nga xam ne ñu ngi jël garab tension nañu nañu naan seen garab correctement nañu dem respecter respecter sen rendez-vous Euh, ndox tamit nañu naan ndox lu bëri waaw parce que bu tàngee nii dañu perte dañu dañu ñàkk bu ñàkkee ndox dañu perte bu bëri donc dañuy mar bu ñu naan le dañuy am beneen complication. instant yi moom tàngoor bi vraiment métti na tànk moom jeune vraiment dafa métti. métti na si xale yi nag waxuma paa yi ak mairie yi su incha allah dañu ñaan yàlla rek yàlla nawet bi gaaw a ñëw ñoo xaw a noppaleeku tuuti. waaye bu ñu waa météo jàpp nañ ni. tàngoor bi war na wàññeeku bu baax a baax ndaxte ñu ngi xaarandi ay taw ñu ne nawet bu ren bi taw bi dina teel a ñëw waaye laataa loolu lu ñu xaarandi si askan wi mooy ñi respecté bépp digle bi nga xamante ne ñu yëngu ci wàllum santé ñoo ko joxe. mi ngi noonu sant engrais ñeel na leen bu baax a baax ñu jaajëfal Coro sàmb ci élément bi ñu euh, seetaan ko ba tey rek di ànd ak waa météo euh, ci jàngat yu am solo bi ñuy def euh, ci climat bi ndax dafay baax lool aussi ndax loolu dina tax aussi ñu mën a fàggandiku ba suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci géej gi di nappkat yi mën a xool aussi tamit naka la ñuy mën a def ba bu ñu fa demee benn gàllankoor du am xam naa sax monsieur Ndiaye ñoom bokk na ci ñi ñu gën a dimbali ba xam ne nit ñi réer ci géej ñi mm. wàññeeku na bu baax a baax a baax moo tax tax ngeen ràññeeku ci Afrique saw ba ñu mm. daal di leen di bëgg a primer ndax performance ñu am solo yi nga xamné ne yéen a ngi koy amal ci seen walu liggéey mm. euh, te loolu dafa nekk lo am solo mu nekk 3e édition euh, prix Optimum euh, du service public africain 2024 mm. ñu nar leen di primer ce 5 juin 2024 nag di wane ne que ne xarañte mhm. ak liggéey bu am solo mhm. moom ngeen ràññeeku ci Afrique ba ñu euh, euh, seppi leen ci ne mhm. yéen kat dañ leen di delloo njukkal loolu nag nekk suñu feex fierté ndax la chaîne leader mooy moomeelu askan bi donc saa askan bi defee ay mbiix ba tollu fenn fii ba ràññeeku ci àddina dañuy bëgg aussi fësal loolu ngir ñeneen ñi del ci exemple mais aussi ngir waxtaanee ko ak yéen ñi ko def euh, pour ñu xam taxawaay bi ngeen am ba mën a réussir loolu naka la jërëjëf maman di ñu mhm. dalalaat encore jërëjëf ci euh, li ñu doon wane sànq aussi parce que lépp dafa lënkaloo mhm. je pense que conservation yi ak production beeg lépp météo da ci jouer rôle mhm. leen di accompagner di leen aussi ci loolu euh, comme ni nga ko waxee rek noonu la xam nga temps yi képp ku ñuy topp gis nga ni dañoo gën a jublu ci euh, besoin askan bi askan bi xam nañ ñu jafe-jafe yu bëri dafa lié météo

comme ni nga ko waxee nag li ci gën a garaaw mooy suñu mbokk nappkat yi parce que ñoom maari di taal des fois ay bakken ñoo ciy tuuru mhm. donc moom moo tax ñu développé lu baax a baax liggéey ak ñoom commencé CLPA yi ak ñuy accompagner di leen jox information mhm. boo gisee fan yi mujj lu ñu gën a mooy fexe ba xarale yu bees yi mhm. ba mën cee présent ba ñoom ñu mën a jot information yi léegi fu ñu toll nii météo am nañ base de bu takk bi nga xam ni tey euh, bu ñu amee gisee dara géej gi dafay yëngatu ngelaw dafay fort ñu mu leen envoyé message seen téléphone mhm. parce que alhamdulilah Sénégal yi ñu wër am nañ téléphone yónni li seen téléphone ne leen ah jàpp nañ ni kat suba dina am ay yëngu-yëngu ñu ko defee quelques années ñu def évaluation xam nga baax des booy def dara chaque fois koy saytu mhm. bi ñu ñu ne ah, am na ñoo xam ne jànguñu surtout baykat yi ne jànguñu mhm. nañ gis kat message bi xam ne am na luy li ñu def na mooy voix léegi defal nañ ci technologie bi nga xam ni jàkkaarloo ci ak aussi sunu jeunes yi nga xam ni ñooy indi ay liggéey ñu ko startup yi mhm. ñoo ñoon jàppale ci côté boobu parce que ñun aussi xarañ ci côté boobu fexe ba ñoom ñu développé benn technologie bi nga xam ni tey bu ñu prévoir dara dañ koy enregistré ci wolof mhm. léegi sax ñu ngi ci six langues bu njëkk ba dañ koy envoyé ci wolof mhm. mu naat une minute trente secondes ñu fexe ba yónnee ko ci téléphone yi yow da ngay jékki téléphone sonné boo xoolee numéro bi xam ne mooy nga déclenché message bi commencé ah météo nee na am géej gi nangam ak nangam yu mel te bu ñu defee évaluation jàpp ci ay projet gis nañ daal vraiment am na jeexantal bu rëy a ba tey sax fi ñu toll nii yi dañuy travailler ak ñoom comme ay partenaires dañoo déplacé léegi rek ñoom dañuy ñëw nag ay clients mais ay partenaires lañ mhm. dañuy gis dara ah, am na lu amoon te waxu ko woon wala li ngeen waxoon gis nañ ko yu mel noonu mhm. donc gis nañu daal am na jeexantal gu bëree bëree bëri mhm. ñoom balaa ñuy dem géej léegi dañuy woo woo ñu vraiment nañu bëgg a dem géej loolu leen ci mel noonu yenn tamit ñu toog lu yàgg dana affaire yaa ngi bëgg a yàgg de est-ce que ñu ne dit changé wul mais gis ni am na mel noonu mm-hmm. te lépp liggéey la te information lu ci ëpp am solo la vraiment parce que information bi ñu mhm. def mujj mhm. ci baykat yi ci nappkat yi mhm. ci sàmmkat yi surtout léegi ñu développé temps mooy at bii passé mooy ci mbirum euh, santé parce que gis nañu tàngoor bi dafa dégg gis nañ ko temps yi dafa jéggi dayo ak yeneen bi donc ni ñuy def travail ministère la santé leen remercier bu baax a baax seen liggéey liggéey muy direction générale de santé am benn bulletin bu jëmmal boo xam ne Sénégal moo ko a def mooy bulletin climat santé tey boo gisee am na bulletin boo xam ne dañ koy envoyé ci district sanitaire yëpp di leen en tout cas ngeen def ndànk semaine bii na tàng boo xoolee def nañ bi def ñoo defoon ba fi le neuf te macha allah antu na lool parce que le 3 la ñu amoon tàngoor yu jéggi dayoo. boo gisee Koungheul am nañ 48 virgule 7 ci mhm. koor en plus. Mhm. Mhm. boo gisee Touba ñu bëri nañ ñëwoon si dañoo dog seen koor. barki démb rek lañ ma démb ci guddi sax dama kenn woo ne ma le 3 boobu ngay wax. damaa dog sama koor dama obligé dog koor. donc bu woon def am solo donc yooyu météo day fexe ba ni ñi mën di farlu. di fargu bu baax a baax di jël seen jumtuwaay donc koy def loolu nag mhm. xam naa ne yooyu moo indi lu mel nii parce que li sax dañoo bett parce que ñun mhm. yëguñu ko woon benn organisation boo xam ne ñu ngi basé wu ca Ghana mhm. ñoom ñooy def chaque année dañuy saytu lépp kuy def service public du météo rek service public booy mën a def rek dañuy saytu ko ci gën a xarañ ki nga xam ne gis na ci différence bu rëy rëy ci askan bi ñu daal koy proposer comme prime donc année bi 2024 alhamdulilah météo Sénégal lañu primé ci météo yi nekk ci Afrique yépp et c'est la première fois ñuy primé aussi météo boo xam ni ci langue française la pour dire donc mu nekk euh, mbégte bu rëy rëy ci ñun nekk aussi di wan ni xale yi nekk suñu ginnaaw di liggéey mm-hmm. ak aussi ñuy jàppale suñu mm-hmm. mbokk baykat yi lay xalaat amna na yo xamni machallah ne kafrin allah len Kaffrine mhm. du ma leen fàtte mukk bi commencé ñoo ci jàpp ci liggéey bi ay ngóodi ba ay ñii bi mhm. jàpp ci liggéey bi japp bo xamni sax dafa dafa wess comme ni nga ko waxee rek jigéen ñoom ñu dugg lu ne rek macha allah day am barke <laughs> lu wees sunu sunu sunu ñort mhm. japp ci liggéey bi diñu jox ay conseils di ci nekk diñu wax ñu travail ji lolu ba dem légui ba xamnañu légui léegi di def ak askan bi alhamdulilah donc comme ni nga le 5 juin inshallah lañuy la dem jëli euh, prix bi météo muy prix bo xamni ni prix sénégalais yépp la donc content lool li tamit dañuy ñaax tax ñu mën a gën a góorgóorlu parce que boo xasee am prix moom mhm. il faut nga essayer gën a di avancer di avancer waaw lu mhm. baax a baax donc xarale yu bees moom vraiment lu ama am solo la fi ñu toll parce que temps yi ñun mhm. li ñu gën a orienté léegi mooy li

amal mm. loolu moo tax nit ñi a xam njëriñu météo mm. parce que avant sax xëy na am na ñenn ñoo xam ne ñàkkoon a xam seen njëriñ moo mm. tax ñu ne ax ah, météo de su waxee dara euh, jarul ñu ci basé wu mais dem nañu ba xam solo si seen liggéey am te aussi tamit ngeen koy tekk ci lu am solo looy xam ne nekk lu ngeen di tàndu mais da ngeen di def ay recherche teg ko yoo xamante ni leen nii dina tax nit ki mën a jël ay euh, ay matuwaayam te loolu dafa nekk lu am solo xam naa prix sax boo moytul man ak yow ay ànd ndax aussi comme booba xanaa lu mel noonu kay xam naa fu ñu jaar RTS ngi suñu ginnaaw <laughs> macha allah vraiment li nga wax ci xarale kii ama am solo la mhm. temps am na développement yu bëree bëri du publicité waaye USAID ku ñu jàppale temps yi ñu benn ordinateur boo xam ni jege na presque un milliard mhm. Mhm. ordinateur bu na moo ñuy permettre ñu mën a tourner suñuy di mën a xam lu bëree bëri gis nañu ay amélioration yu bëri mais des na xam nañ aussi suñu liggéey am na ay tolof tolof yoo xam jëmee ci mbirum climat ñu mën a fexe ba wàññi bu dee mënuñu ko dakkal temps yi xam nga inondation yi lu mm-hmm. mbënd mi lu méttee métti la ci askan bi mm-hmm. donc ñu ngi xool nan lañ mën a def ba def ay prévision ba nit ñi di mën a moytu mm-hmm. surtout ci yenn gox yi nga xam ni mbënd mi dafay am ay conséquences yu bëree bëri parce que mala yi des yi day dal seen kaw yi mel noonu te nag dañoo nekk ci benn euh, moment bi nga xam ne ñu wiir changement climatique xam ñun météo yi gis nañ ni dafay gën a dem ci kanam mhm. dafay gën di tàng n'est-ce donc lu mel noonu bu amee mhm. dafay baax tey nit ñi commencé saytu mhm. mais ñun nag malheureusement nañ jàpp ne tàngoor bi suñu décor la bokk suñu climat la bokk moo tax duñu jël suñuy eh, matuwaay mais gis nañ tey ay Matam ay Linguère bi defee enquête nee léegi dafa am touriste yoo xam ni hmm. mag ñi en général bu tàngoor bi ñëwee ñëw seen mbokk yi hmm. Dakar bu mu gën a féex ba ñu mën a delluwaat encore hmm. donc yooyu ama am solo moo tax ñun dañuy fexe ba kanu yëpp muy rajo communautaire yi SMS tey groupe WhatsApp yi am nañ groupe WhatsApp yu bëri yi xam ni ñun fa la ñu wu di leen mën a jox information ñu ko jël nag dafa soxla coût dafa soxla prix dafa soxla jàppalante te la ñuy góorgóorlu ak suñu partenaires yi mais ba mm. mm. a a baax mm. dafa boo xoolee mbay mi boo xoolee quatre-vingt pour cent mbay mi mm-hmm. bu mm-hmm. baax nga am lépp lu baax bu nawet bi antuwul du baax donc dafay baax avant nga mën a planifier bañ genre xeet bañ genre gàncax mm-hmm. ngay na dugub soixante jours am dugub cent vingt jours ban nga ciy ji loolu dafa dépendre ci météo donc ñu di leen accompagner ci loolu santé bi aussi xam nga ñëpp xam nañ ni sibbiru bu métti bi mu ngi ñëw ci saison pluvieuse bi mhm. ça dépend ni taw bi di tëdd donc loolu aussi dañuy travailler santé ñu mën a planifier bu baax a préparer wu ensuite transformation yi aussi mhm. dañuy fóot des bëgg a weer mhm. bëgg rek xam ni ba xam météo dina taw yu mel noonu donc am na information yu bëree bëri nit ñaa ngi changé daal bu baax a baax alhamdulilah bëgg nag mooy nit ñi dem am comportement météo tey balaa ngay mooy météo la la daal la ñu bëgg incha allah bien sûr loolu nekk na lu am solo Fatima euh, gis nga ne fan yi passé sax dañu doon dégg ay taw mhm. euh, ci yenn gox yi te loolu xam ngeen ne ci mois d' avril kenn mënu musu ko woon xalaat loolu yëpp di euh, wane perturbation bi nga xam ne am na te mhm. loolu ñoom ñooy tax ñu mën koo xam mën ci jël suñu ay dispositif yi nga xam ne mooy tax ñu mën ci nekk ci jàmm ñoom éviter nañu aussi tamit ay malaise parce que tay mak mi nga xamné mi ngi ci région yi mu tang ba 46 degrés. Mhm. ñom bu taxee ñu xam ko dina tax mu mëna ñëw kër gi nekk Dakar mhm. waye aussi dina tax fu mu mëna a nekk aussi mu yobale ndoxam du nan mhm. euh, parce que loolu aussi day am solo ci mom gungé ko aussi ci wér gu am Fatima xam nga avant suñu culture néewul won di déglu météo parce que la majeure partie disait comme météo bu la ni la euh, euh, mën na à chaque fois lieu d'entendre ce que météo a dit il se pourrait mu taw mhm. dañuy ne météo nee mais loolu mhm. euh, je pense que mi ngi dañ mhm. nit ñi ngi xel les informations du matin le matin kii boo xoolee émission matinale ñoom ñëpp dañuy def météo mhm. léegi yow boo ko dégloo avant ngaa génn bu ñu ne da nga pus dafa dina poussière nga gànnaa yow sa masque mhm. bu ñu ne dina tàng nga xool ci li ngay sol bu ñu ne dina mhm. sedd booy demit noo def yu baale yóbbaale euh, yóbbaale lu diis loo xam ne dafa am solo léegi ci loolu dañ bëggoon a xam euh, monsieur Ndiaye météo yaa ngi wax kii da ngay am am am quelques problème yi ngeen di jànkoonteel problème yi yan la bu dee ñun ñi Euh, population bi. am nañ ci wàll. nan la ñu mën a def ba participer ci ba mën a euh, dañal problème yooyu noonu. problème wàll yu bari la wàll bi njëkk mooy. Mhm. météo du tànn science la. Mhm. donc li ñuy déparé mooy il am ay données. Mhm. il xam bu baax a baax a baax boo xamul ne amul station yu yu doy Sénégal. doo a wax exactement liy xew da ngay tànn tànn mooy dëgg. donc science la yoo xam ni région bu nekk ville bu nekk commune bu nekk ñoom fay station. loolu dafa am solo mooy li njëkk. mooy li nga xam mooy mooy dugg bu loolu paree am ay jumtuwaay yu xarañ. vraiment léegi alhamdulilah développement ngi naan intelligence artificielle mhm. ordinateurs yi ñu développé satellite yi fexe ba am information en temps réel pour mën koo euh, jàppale askan bi mhm. beneen bi ci des ay moyens ay moyens vraiment xam nga tay maa ngi wax naan SMS ci euh, téléphones yi. Mhm. di wax naan voix loolu dafa am coût coût bu métti boo xoolee voix yi dañuy coûté dafa xaw a cher. Mhm. moo tax ñuy développé partenariat public privé parce que ñun aussi météo dañ bëgg a ubbeeku xam nañu météo fànn yu nekk ñoo ko utiliser. aviation civile mhm. santé euh, élevage pêche et cetera. nan la mën a ba xale yi tey nga xam ne macha allah seen xam-xam màcc nañu ci technologie yu bees yi. nan lañ ñu mën a développé valeur ajoutée li valeur ajoutée. moo tax am nañ ci ñu bëree bëri ñoo xam bañ a ay tur rek xanaa peut être Jokalante mi nga xam ne mooy suñu partenaire numéro un ndaw su jàmbaare macha allah ñëw gis ñu ne ñun am de mais eggul ba léegi fi war a egg est ce que doolu moom mmh. bénéfice mmh. mel noonu mais dafa am coût parce que météo service public la ñun mënuñu tey information bu am solo mmh. daal duñ ko joxe dañuy xaar ñu fay rek ñu jox leen ko déedéet il faut ñu jox ko ñëpp donc loolu nag dafa soxla état bi vraiment jàppale ñu baax a baax a baax pour ñu mën a développer service public mën a dem encore euh, ci loolu bi ci des mooy population yi temps ñu

bu nawet bi commencé boo jiyee mm-hmm. yenn saa day toog ay fan du taw li nga jiwee nga perte ko ju bëri seen loxo la ñu force bi mm-hmm. imagine toi nga jënd engrais mm-hmm. nga jënd jiw boo xam certifié loolu nga def ko ci ba dafa laaj formation bi lu ama am solo dem ci askan bi delluwaat ci askan bi xool ñoom la ñuy liggéey parce que des fois ngay comme docteur rek balaa ngay faj nit il faut nga xam diagnostic mm-hmm. moo ñu li muy def yëpp mm-hmm. ñu ah, pourtant boo moon information climatique fii est ce que du baax mu ne ah waaw man kay damaa xamuñu ñu bëri xamuñu mm-hmm. nappkat ñoom ba léegi léegi duñu demati géej ci cent xam nga tey léegi yi def mooy ci plage boo dem dañu fay def ab drapeau waaw am ku ñu fa teewal bu dee géej gi wax sambala kenn du dem géej parce que météo neen dafay yëngatu parce que ay vie

ba gouvernement mën a récupérer ci licence de pêche peut être mhm, n'est-ce pas ci assurance agricole wala leneen mhm. dañu am pourcentage yoo xam ne dañ koy delloo météo mhm. pour météo mën ci sukkandiku étranger ñuy fay bu baaxa baax <laughs> lu bari ñu fay ko ndax ñu dem <laughs> ah, li ngeer euh, wax dëgg yalla dala loolu la doon na mbégte si ñun euh, xamee nañ lu bëri ci tey ci épices ak na ngeen di def ba mën ko tek euh, sur le marché té loolu aussi dafa doon mbégte bu mak mais waxtu wi mo ñu teunk xamna météo mom ñàkkul ni amna lo ci bëgg a ni mais da ngay tagato nak ndax waxtu wi jeex na <laughs> wa xanaa di leen remercier waat mm. rek mm. remercier waat monsieur Ndiaye si leeral yi parce que météo am na solo itam parce que changement climatique bi ñëpp xam nañu effet yi muy def si nit ñi mm-hmm. ah suñu wér-gu-yaram sax d'abord donc euh, ñu remercier Fatima. Mhm. maman ah ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp. remercier télévision bi aussi si mhm. opportunité bi. Mhm. vraiment loo xam ne Sénégal war nañ ko xam. ngeen may ñëw occasion ñu ñëw toog wax ak waa Sénégal. si li ñuy def ak ñoom njëriñ bi mu leen amal. surtout njëriñ bi mu leen amal. donc looloo tax euh, ñu ngi leen di remercier waat bu baax si opportunité bi. di wax waa Sénégal yëpp Kër euh, Linguère épice la. ku bëgg a togg mu neex que mhm. li ngeen épice ngay togge te sa guu togg sa kër rek lañ koy lekke d'accord man moom benn taxawaay laa ci am après Fatima mooy xool ak yow ak waa commercial yaa wax a ah, waaw waaw baax na monsieur Ndiaye a bàyyi la nga tàggatoo waaw jërëjëfal maman di jëfal ñëpp bi kontaan loolu comme ni nga ko waxee rek vraiment information lu ama am solo mhm. ñu bëri dañuy acté parce que dañoo xamul mhm. bu ñu xamee rek defe naa dañ a comportement at yi yëpp eh, mm-hmm. di kontaan loolu aussi ci transformatrice mm-hmm. di ñaan rek ñaax aussi grande surface yi fexe ba jënd mel nii di ko di leen jàppale aussi ci mel noonu mm-hmm. góor ñu aussi jàpp ci fexe ba ci kër daal di interdire bu ma wax interdire yeneen yi fexe ba li am solo di kon ne euh, vraiment di leen wax aussi ngeen xool information climatique bu baax a baax parce que ñu ngi ci changement climatique soppite yi taw ëgg yi di fi am am ay jeexantal yu bëree surtout ci euh, sàmm geeg yu mel noonu mhm. nest pas donc war nañu fexe ba ko éviter lu ñu mën a éviter la mhm. man des mhm. en tant que loolu may naqari bu ma déggee ni defoon nañu alerte ba pare am nañu dee ci géej yi muy jàll bu baax a merci beaucoup ñun ñoo leen di jaajëfal bu wér a wér mbégte ñu nañu ci recevoir leen ci plateau wu jeeg këram euh, waaye aussi tamit ma remercier sama partenaire Mouna Création moom mi nga xam ne sama solal lu bëri may ànd ak moom ci samay émission donc mun naa mi ngi ca euh, rond point Liberté 6. mais su ngeen eggee ba foofu da ngeen koy woo ci 77 044 89 53 77 044. 89 Muna création lépp lu ngeen bëgg ci lu nice am na arrivage yu ay brodé yu magnifique yoo xam ne benn la ci bi ma sol nii di ngeen gis beneen suba euh, yooyu noonu yëpp da ngeen di dem ngeen seeti Muna création mais ma euh, nuyuwaale euh, copine am boobu noonu nekk madame Thiam Nabou moom itam ku baax la macha allah ñu nuyu ko bu baax jaajëfal ko ci teewul bi muy teewlu RTS ak cofeel gi mu am ci ñun. Mhm. Fatima yooyu itam ma la nga tàggatoo. wax ki ma aussi ki ma solal tey. Mhm. borom Africa design nek mhm. ci CICES moy derrière impôt domaine foire bi rek mi ngi fofu ku ci bëgg nak moom fi mu toll nii mhm. dafa ñaw yëp tek ku am problème solo rek ci qualité gii di woo ci 77 549 79 62 77 549 79 62 mais maman bala ma dem dafa am kenn ko ma wara nuyu muy tata amilam moom mi ngi ba Burkina sa yu toogee mi ngi ci RTS di setan RTS dañ ka wara nuyu muy madame euh, tata amilam muy madame mhm. Moné ñu lay nuyu di la ñaanal jamm ci fi nga nek machallah non la rendez-vous rek lundi prochain incha allah di balu ñëpp àq ci koor ci weeru koor gi euh, ci weeru koor gi ci korité bi ñu waaw di balu ñëpp àq di bal ñëpp àq nag macha allah euh, mi ngi noonu noonu la koy daal di defee rek jaajëfal suñuy téléspectateurs ak suñuy mbokk internautes yi nga xam ne ñi ngi ci plateforme digitalu RTS yëpp di ñuy suivre bu baax a baax ñi ngi gis message yi ñi ngi ciy bég lool di ci kontaan euh, di leen wax ne ñun tamit ñoo leen rawoon na moon nañu leen lool mooy coordination bi aada si montage bi suñu preneur de son bi ak suñu caméraman yi fi nekk euh, caméraman yi kan ak kan la Fatima waaw maam Cheikh ak <laughs> Moustapha maam Cheikh Diabaté <laughs> <laughs> Moustapha moom dafa yaru moom mooy loolu noonu waaye Matar ak ka ca wet ga maam Cheikh Matar dégg nga jox dañ leen jëg daje subaak ak jàmm allah ñu ñëwaat ak yéen ci beneen numéro wu jeeg ak këram euh, d'ici là prenez soin de vous ngeen nekk ci jàmm ñu dem dellu si du ci yàq dara